Salut les amis de Sport TV, merci encore gars de la confiance renouvelée, merci louer des likes, merci louer des abonnés, merci également d'y baisser des commentaires, un plaisir renouvelé à hein. chaque fois de partager des informations et inbox sénégalais, fait pour les 14 régions du Sénégal, rox roxali donc xali ñi ngi leen di jaajëfal ñu nekk également ci la hospitalité ci kër yi tudd feebar yàlla na suñu borom fekk seen bopp wér ak jàmm ñu nekk ci kaso yi nga xam aussi erreur judiciaire gi ñu leen ñu defal wala fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i ñu doit donner suñu borom xel leen àddina fi doon si gars yi ñu yéexee ñu on avance dans la magie des e-sportive et de Baba Show l' en continu actualité bi dañu fas waxtané waxtaanee li nga xam ne do ko ki di Pape Matar Diaye Boy man fi loolu wa Angleterre gis également mooy le futur remplaçant de Sadio Mané ci également équipe nationale et tout wala par rapport au ballon d'or bi wax également ci ki di ismaël Sarr muy dellu si ci li nga xam nak nag mooy trophée trophée mu am ak euh, bu jàkkaarloog Karim mais insolite bi tay li la. <laughs> gay yi wa e football eFootball def Sadio Mané version 2024 ak wa e Sport xool ñaari bon mo ci gëna a Sadio mais gay wa e football mom yam nañ Mané lol lol lol lol <laughs> pendant ce temps également Pierre-Luigi colina mu nek le meilleur arbitre de tous les temps mom néna na bu ko bañ ko wax final euh, Brésil ak Allemagne mom dafa top presque euh, journée ak xaj 24 ah, heures ak xaj ah mu analyser cette ñaari équipe pour xool nan lañu ñuy footballé aussi ci joueur yi ñi tricher yépp yëpp match yi pendant ce temps nga xam ne ne moom bu nekkee xale papam da doon sol benn maillot cere ah bu ah, Zidane da doon sol mu ne ko mais kii mooy kan papam ne ko demal seetaan ko nee na ba mu ko na chaque jour da doy seetaan na loolu tax moom mu ne Zidane mooy idolam loolu wax kii nag di Asamoah Gyan moom nag gars yi <laughs> gannaaw moom di war soxnaam si eh, daal dañu ko sa xaaju li nga am ci koppar muy otoog lépp da koy séddoo ak sa soxna ba pare nag lu tolloo plus de un million et quelque mu koy jox ah, li nga xam ne nag mooy donc njabootam chaque weer kii nag moom di euh, Paul euh, Pogba moom nag gannaaw bi nga xamee ne gars yi gis ngeen ni ñu ko daal di euh, teg ci ndoddam moom daal jàpp nañ ne lu mu néew ñaari at daal lay toog doot ko football le joueur international français pour dire que sa carrière actuellement moom gars yi doy na waar Pierre Ikay Gundogan nag nee na moom boobu demee ci vestiaire yi waxtaan na aussi ak joueur Barça yi ci li mu waxoon keroog ne man ñëwuma fi pour perdre match yi nee na loolu lu mu yàgg wax la moom mu nekkee ci City la bu ñu amee trop trop et que nee na joueurs yi ni ñu ko jëlee normal la donc amul coow bu ko gars yi bëgg a def coow ki nga xam ne également nag mooy donc qui dit Rich James moi d'a dit rendre hommage ki nga xam donc Benoît Badiachile ah, ne ko welcome back bon retour Badiachile bi nga xam ne nag dafa moon gaañu gaañu ah, ñëw nag ah, gars reprend des mots premier bureau donc euh, depuis son retour donc voilà ma qui kii également di Anthony un ancien joueur de Manchester United di Andy Cole mu Anthony, ou Anthony Manchester dañoo yak ci mu xaalis bu bëri te booy bi du dugal nee na booy bi du dugal te du indi danger ci bi nee Manchester Nyon tooñ Bob, et que Eric Ten aussi am na ci wàll ndax défendre malheureusement également pour Manchester United Kingham'da bueno Casemiro aussi dafa gaañu et que gars actuellement xamuñu euh, gañu gañum ba kañ lay dem ba fan lay yam donc loolu daal fi mu mo jur euh, ciow également du côté de Manchester nga xam benen cadre amna na gañu gaañu gaañu Vinicius Junior gis ngeen nag signé na euh, du contrat ba 2027 avec ñi nga xam donc la Casablanca waxon na la ko bu yàgg donc officialisé nañ ko depuis demb ah donc Mago. Vinicius Junior waye tamit ki nga xam aussi nak moom donc ki di Rodrigo le joueur brésilien donc Rodrigo également wa Real dañu waaj annoncer prolongation de contrat ba 2000 28 mom nak nag koy gëna a benen contrat gën ko yokku le Rodrigo le joueur brésilien aussi ñom ñi nag ñoom ñaar ñoo c'est les Seleção parce que fini ne ni Neymar moom dafa mel Neymar dem na ci ndox dañi Olmo nak ñi di Paris Saint-Germain di également wa FC Barcelone ak Manchester City ñi ngi top joueur bi nga xam ne mooy le joueur RB Leipzig dañi Olmo l'espagnol club yooyu yëpp daal intéressé woon ci profilu joueur euh, bu ni mel ki nga xam également aussi moy Costa le gardien du Portugal mom nak fi ne nee mi ngi déglu offre yëpp jóge ci Premier League jóge ci Série A et tout dal mom nee foko gaay ko gars yi wooye mu gën ba gis boo dal da fay dal di dem loolu dal dal di feussel ki nga xam nak moy donc euh, Costa jëm ci également ki nga xam nak moy mooy donc Danilo le joueur donc du Paris Saint-Germain Portugal mom it très ah, international. bi di ñëw mom du ci daal di bokk ndax dafa am gaañu gaañoo jusqu'au janvier la am motax dal dañ koy daal di noppal ki nga xam ne donc euh, Danilo euh, qui aussi di Mathis Delirte Mathis Delirte également malheureusement aussi dafa gaañuwaat moom itam Delirte euh, li nga xam aussi mooy blessure bi day tax daal aussi mu écarté wu lu mu tolloog sax weer ak ñaari semaine ah, wala lu mu dañ ne daal lu mu néew ne weer dina ko toog du ko daal di joué bonne nouvelle pour lui Loftus-Cheek moom it tàmbali war na ak waa Milan AC gannaaw yi nga xam ne dafa mon gaañu gaañu donc temps yi daal joueur yi daal blessure yi la gën parce que mercato bi gars du léegi janvier la wat mais dans fi ne nii daal joueurs blessé moom il est de retour de blessure c'est une bonne nouvelle pour le Milan AC pendant ce temps entraîneur du mois ni ngi ni kii la a a Emery gis ngeen ko Arteta ak Postecoglou ak kii di Jürgen Klopp la ñu pour daal si sélectionné mais pour mon Postecoglou ma ko war parce que finalement, il est en train Machallah de faire un sans faute on a Emery également nga xam ne ñoom ñaar ñi ngi wane lu baax ki nga donc Ismaël Sarr Ismaël Sarr critiqué du côté de Marseille par rapport ak efficacité ah, ñi bëri nee nañ daal fi ni day nelaw parce que amul concurrence dëggantaan mais moom wax na ko ci boppam nee moom daal li mu war a gën a travailler mooy efficacité devant les buts muy ca Marseille mais aussi ci équipe nationale du Sénégal parce que ñax naa ne ko Ismaïla Sarr comme benn Ousmane Dembélé day def li li gën a métti lay def mais bu jàkkaarloo camp yi du daal di dugal moom nag nee na lu mu néew néew néew sax ah, euh, saison bi lu mu néew néew néew néew mais aussi gars yi ci équipe nationale du Sénégal fi ne bu ko dugaloon Sénégal lu taxaw benn équipe mais li gën a yomb lay raté li gën a métti mu daal di koy réussir kii di Ismaïla Spiry Sarr pendant ce temps également Pape Matar Diaye Sarr Boy Thiès mën football on parle beaucoup de Jude Bellingham Jude Bellingham gars yi un joueur boo xam ne actuellement mi nga wane boppam baax a baax baax c' est un profil boo xam ne niroo na ak profil bu nekk donc euh, du côté euh, bu ki nga xam ne mooy donc Ismaïla Sarr ah moom Pape Matar Sarr plutôt et Pape Matar Sarr aujourd'hui waa nañ booy bi progression bi mu nekk nii bu fekkee teggiwul tàggam. Euh, il est le futur remplaçant de Sadio Mané pour le Sénégal bien sûr vois walum compétition haut niveau ci ballon d'or yi di pas mal Matar Sarr mën d'abord prétendre bu continuer ci dynamique bi nek ci 30 meilleurs joueurs yi meilleurs jeunes joueurs aussi il peut prétendre dal di koy jël parce que aujourd'hui donc mal Matar ça est le seul joueur sénégalais bo xamné ne mi ngi ci Premier League di enchaîner les titularisations donc aujourd'hui moom le porte-étendard du football sénégalais du côté de la prime League amna ñu fa nek mais comme titulaire chaque fois la lafcat pour moom Pape Matar Sarr et aujourd'hui également au niveau du Sénégal gis ngeen ko ballon d'or bi ni mom ak ki nga xamné moy donc Sadio Mané lañu sélectionné ci trente yi hein, donc franco-sénégalais donc Momit, it ci dynamique bu mu nekk bu mën na ba Jude Bellingham Là, c'est différent, mais que Jude Bellingham c'est un européen donc gars y a koy qui a valoriser et tout mais Pape Matar aujourd'hui su gënee travail li nga xamné nak moy donc euh, jom efficacité am ak nonchalance bi nga de temps en temps la dal parce que les changé na ci lu bëri continuer ci dynamique bi mu nekk gëna liggéey gëna focus il peut devenir aujourd'hui l'un des leaders de l'équipe nationale du Sénégal mais également nekk jour boo xamné am dayo ci Angleterre parce que il n'a que 20 ans pas Matar Sarr 20 ans la la la cat la cat pas Matar Diatar Boy Thiès mën football et il a les pieds sur terre limako togné ko Diatar Diatar il a les pieds sur terre et c'est assez important gars yi gën yéen man gis nga ngeen ci am est-ce que japp ngeen ni comme ni ko spécialiste di ko wax ci Angleterre nan il peut devenir un futur grand joueur et même hein, être au niveau d'un certain Sadio Mané y la ngeen ci gis way leen on avance ensemble dans la magie sportive et de Baba Show su vous ci